Euh, DG des impôts à l'endroit du président deux mots. waaw dinaa euh, dina dellu si ci président. Euh, et vraiment c'est non Mamadou mënuñu développé waat non non non ah. ci moom laa yem. Mhm. ci moom laa yem pour wax ne il a il est un grand homme. et loolu opposition wala wala bañ a far ak moom warta tax nga nga nga nga am benn position de nihilisme wala di jël lépp rek bëgg ci def table rase un pays. buy développé wu di endetté wu te endettement bi nekk niveau boo xamante ni si mais niveau de développement may na ko ko loolu amul dara lu mu yàq si bilan et ça il faut que ce débat là ñu nangu ko poser parce que les pays les plus développés mais sont les pays les plus endettés ñun on est toujours dans les critères de, convergence au niveau de l'UEMOA sur, le plan de la demande on est très à sur ces questions là non ces critères là non non waaw waaw waaw deux deux mots pour dire juste que cest à grandeur mooy nga nangul nit li ko yàlla may wala li mu def ci lu baax. et sa loolu mooy charme politique aussi. merci moo di mën nga opposé wu nit ki mais da koy nangul li mu def ci lu baax. président Macky Sall nag lu ko waaye bañ bañ bañ. di nga nangu ni liggéey na réew mi au-delà de nos espérances. merci beaucoup léegi nag ginnaaw vraiment tàggoo na ci moom boo xamante ne si bu ko neexoon du ko def mais au moins nañ ko nangu hauteur ak boobu. man de foofu laay teg sama tànk vraiment pour di ko ñaanal yàlla parce que tamit euh, dañuy fàttali mais nit la comme ñun am ay ay ay état d'âme am famille am ni ay leneen leneen kon nañ ko ñaanal mu génne ci ni mu gënee ci moom ak ci njabootam dem ci yeneen perspective yoo xamante ni si moo gën ci moom gën ci Sénégal parce que nag tey jii nii dina nekkaat beneen nit nekkoon na ko déjà amoon na posture boobu noonu amoon na grandeur boobu mais dina yokkaat grandeur u Sénégal et loolu war nañ ko ci